yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na weeru koor bu dikkee dañuy ubbi wunti àjjana tëj wunti sawara jéng saytaane yi xaddis bi buxaari ak muslim ñoo ko nettali qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jaa ramadaanu futtixat abwaabul janna wa xulliqat abwaabu naar wa suffidati shayatin rawaahu buxaari wa muslim man